aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi fàttali ci bàyyi mas naa wax ne jullit akbar ñu ngi tatagal ci turi alxalifa cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass xaadimul umma ci turam Mouhamadul Makki ak mbooleem rakkam yi waaye kër Cheikh Alxaaji Abdullahi mu mag ñu ngi nii teew muqaddam yi jugee ba Mauritanie gan ñu jugee ci barab ñu fasantikoo yoo xam ne ñu ci bëri tombee mooy waral ay gaaf ñu ngi lay dalal ci sa kër ci sa yi soppe wax naa la léegi ci suñ waxtaan ci dareexi Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ne la maa ngi lay ndokkeel ci ñëw bi nga ñëw ndax am nga fi ñoo xam ne boo yëngatuwoon rek ñu ne président mooy ñëw am ñu ma la tudd waaye ne mag ñi moom li taxoon ñu gën a bëgg nga ñëw dañoo bëgg nga am tawfiq te xam nañ ne fii utuwaayu tawfiq la Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu xam nañ ne déngaréem bii mu nekk yàlla may na ko fi benn woykat daf ko woyoon ne moom maye na àddina maye na yàlla maye na ruur tey jii nag yaa ngi toog ci barab boo xam ne bu baaxee ñun ñëpp la baaxal sëriñ bi masta dañ di la ñaanal ba nga toogee ba léegi li taxoon bés bii nga bëgg ko boo ñëwee mu ñaan nga ne amin jaamu yàlla yu baax yi yëpp ne amin te al mu aminu ahadu daayin yonent bi mooy wax nekk kii ñaan ak kiy wax amin yëpp kenn la ci ñaankat yi ñaanaloon na la te gisu la waaye bu lay ñaanal ngay wax amin sette su baax si yëpp di wax amin loolu dara ëpp ko yaakaar rawatina ci jamono ji ñu toll nga xam ne mooy jamono juñ tànn muy yàlla maye yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi nga xam ne him àddina ak yu àllaaxira yëpp ci la jógee wax naa la léegi ne la ñaanal yàlla tawfiq sëriñ baa ngi la koy ñaanal bokk yëpp la koy ñaanal ndax gëm nañ ne bëgg ngeen a liggéey gëm nañ ne nar ngeen a liggéey tawfiq nag ci loxo yàlla la nekk te teew ci barab yu mel nii daf koy may Cheikh Ibrahim barabam bi àddina lépp la boole wa taj'alu misri haadihi mutma'innatan te suuf su bilaadallahi lam yanquhaa karbun bàyyi daf ne yàlla yàlla nga def suma déngëre bii muy déngëre bu óor óor ak déngëre bi dafay indi kóor ak Sénégal muy dëkk boo xam ne dafay ommat àddina yëpp tukki yi sëriñ bi mujj tukki ak ñi jaar ci yoon wi bàyyi rëdd du dara lu may pour tasaare jàmm ba ki démb la nekkoon Cameroun loolu yëpp ñoom bàyyi daf leen a waxoon ci benn dénkaaneem na ngeen def na ngeen jàng wal taalamu wal taamalu wa allimu wal tazimu luzuma maa la yelzam na ngeen jàng na ngeen jëfee li ngeen jàng waaye na ngeen jàngale na ngeen def ba def lu leen waru ci baatab def lu leen waru boobu moo tax muy toggoo yenn coono yi nga xam ne ñu ngi ko war a toggoo yépp ndax pour baaxal bàyyi ba mu leen ebalee qaahira ñu jàng daf leen a wax ne laa yakun naf'ukum qaasiran seen njëriñ bu mu nekk lu gàtt waaye nangeen ngeen enu njëriñ yóbbu ko ci seen xeet yóbbu ko ci seen dëkk ba pare yóbbu ko ci àddina yépp ki nga gis muy yóbbu njëriñ nag Cameroun Soudan fu nekk di dem du bàyyi mukk xeetam te bàyyi ñaanaloon na ko ne ko yàlla nga nekk njëriñal umma bi ki nga xam ne dañ koo ñaanal mu nekk njëriñal umma bi amul droit noppi ci lu war a wax amul droit ñàkk leeral mu war a leeral amul droit ah. ñàkk a taxaw taxawaay bu war war a war a taxaw waaye amoon na ngànt ci lu bëri dafa mas a tàggu bàyyi pour tukki bàyyi na ko maaxi toogal tukki amul benn njëriñ waxtu boo amee njëriñ àddina daañu la fekk si loolu moo ñëw tey jii dëkk yi muy dem ñoo koy fekk si ndax ñooy ñëw pare seen yëf yëpp pour mu dem kooku nga fekk si tey ak ñi nga xam ne ñooy moom ñoom ñooy moom ñu ngi lay tatagal ñu ngi te wax nga ma léegi ne nga pour ñi xamal la ne sëriñ bi dafa nekk ci tukki loolu ngant la ñu ngi koy nangu waaye ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la tawfiq bu nga xam ne nii li xale yi di xaar ci yow te li xale yi di xaar mag ñi moom la ñuy ndax mag ñi am nañ am waaye dañoo bëgg xale yi am kon li yi di xaar moom la mag ñi di xaar li ci yow yàlla yàlla may la tawfiq ba nga mën koo def jàmm ji nga xam ne nii moom la yàlla def muy Sénégal nga xam ne dëgg-dëgg amul teewal bu ko ëpp ndax gis nañ sous-région bi ñuy dem li fay xew kon ñi ngi sant yàlla ci jàmm Sénégal gi waaye ñi ngi lay santale yàlla ñëw tim di la wax nga sant yàlla bi nga xamee ne yàlla may na la nga agsi te agsee ci jàmm dara yàquwut loolu yàlla na ko jàmm ñu ngi ci gàmm gi yàlla nañ ci dugg ci jàmm génn ci jàmm dañ la jox kàddu gi nga wax say baat boo paree sëriñ bi ñaanal la encouragé la ñëpp wax amin ci ñaan bi ñu ngi lay ñaanal yàlla tawfiq wa najaax wa nasr wa tayid yal na yàlla boole ñu dimbale ñun ñëpp yal na yàlla dimbale dineen islam yal na yàlla xiir ñu ci liw dugg ak ci liw gërëm allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf jërëjëf jërëjëf Cissé léegi kàddu gi dafay